mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen defal leen décortique série du man tey nag mu yemook épisode 19 bi dañu koy door ak séquence bu njëkk bi foofu nag li ñu fay jàngee rek mooy xarit bu baax dina gën doomu ndey ndax boo amee naqar da bokk ak yow boo amee bànneex itam mu bokk ko ak yow ndax gis nañu Nene ak Keba ku si nekk si ñoom ñaar rek sa sa bésu mariage sa xarit dafa ñëw dal di la ci euh, taxawu euh, ku ci nekk rek li mu ak mom mu dal di la koy euh, defal ndax undu bokku na ci ñi nga xamni ñom ñoo demoon rek takki ki nga xamni modi di nenne te ba mu paree yitam da dellu ci kër gi ngir dalal xelu ki nga xamni modi xaritam di keba sira tamit gis nañu ko mu accompagner nenne ci bëssam bi ba mu noppee itam mu taxaw tém ngir lijeentil ko problème bi nga xamni mom la am lolu sax motax ba mu dorogee keba ba biram di metti pour éviter rek mu dal di jël nenné ci bëss bobu loolu naka lañuy wowe rek xarit deug té moy rek foko ko mu dal di tew ba nga ko ba tay gis nañu ki nga xamni mom modi touti di tuuti moom it mu taxaw ngir jappalé nenné si problème bi mu am ndax néna na day tëdd ci place am mel na ni nenné rek da ko euh, desee wolu euh, ndax japp na ni taxawalu kat la te fi mu jaar da bari wayé nak da faté ni li am solo rek ci nit moy. Euh, nga rek daal di xam sa bopp euh, fonk sa bopp euh, ba ku lay euh, séentu ci gaalu xaj rek mu bañ la fa fekk loolu nag la tuuti daal di wane ndax tey jii li ñëpp njortu ci moom amul foofu itam mën nañu faa jàngee rek ni mbokk lu am solo la ndax boo amee jafe-jafe moom mooy njëkk a taxaw te amaana sax boo amee bànneex mu bàyyi la ak moom kon yaakaar na ku nekk rek war ngaa fonk bu baax a baax say mbokku ndax bu dee xarit wala àndandoo yow yaa utal sa bopp topp waaye mbokk nag yàlla moom moo la koy tànnal te yaakaar naa fu yàlla moo gën euh, li nga xam ni moom nga tànnal sa bopp euh, ndax yàlla euh, ku nekk rek li gën ci moom la koy defal kon mbokk yaakaar naa lu jara fonk la ñu jàll ci maada ak penda maada nag nee na xelam dalul benn yoon ci li nga xam ni moom la doomam daal di sëyi kër ayda ndax foofu kër bandi la waaye penda wax na ko dëgg ndax xamal na ko ni ayda nekkul si ay loxo ay bandi waaye si loxo yàlla rek la nekk loolu nag mooy dëgg rek ndax yàlla mi nga xam ni moo bind jaamam li mu namm si moom rek mooy am même bu nekkee si danger wala situation boo xam ni ñëpp jàpp nañu ni du ci génn yàlla mën na ko cee génnee ndax dañu naan lu dul yàlla rek neen la ñu jàll ci Sira ak Bil ñoom ñaar nag bu ñu leen seetloo bu baax a baax mel na ni am na lu ñu seq loo xam ni dañu koy nëbb ndax gis nañu ni bi Sira nee bi Sira demee rek ngir ñibbi daa wax rek Bil ni ko boo ma gungewul euh, na nga supprimer sama numéro ci sa téléphone euh, loolu nag day wane rek ni am na lu ñu séq ñoom ñaar euh, ndax bu doon rek keneen du am sañ-sañu di ko wax loolu te gis nañu ni bi mu ko ko waxee daa génn rek ngir daal di koy gunge waaye comme d'habitude Bill moom Aida rek la daal di teg muy nit te lu mu ko wax rek loolu lay def ba tax na rek bi mu nekkoo foo jëm dugaatal ci kër gi daa daal di wëññeeku Bill nag rôle bi muy joué yaakaaruma ni rek mën ñàkk fayda ñàkk fayda yaakaar naa rek war ngaa xam ni sa baatu kër yaay borom te kenn waru koo jël ci yow ndax yàlla moom moo la ko jagleel ba tax kilifa dëgg daa war a mat kilifa waaye bil ni mu mel biir këram e, niruwul sax ni moom mooy boroom kër gi ndax keebaa mi nga xam ni mooy doomam sax moo ko ëpp baat ci kër gi ñu jàll si keebaa e, moom nag jus bi nga xam ni moom la ko siraa jox commencé naa def effet loolu nag e, daa tax rek ba amatul benn kàttan pour jël soxnaam mu mel ni loolu la Sira bëggoon pour génnee xaritam ci situation bi nga xam ni moom la nekk waaye Keba moom it euh, dem na ci seexam bi di almaami ngir rek mu génnee ko ci situation bi euh, mu mel ni bu almaami nangoo li Keba bëgg mën naa jur leneen mën na dem sax ba ki nga xam ni euh, moo di almaami ak tuuti sëy daal di juddu ci seen diggante ndax ñoom ñaar rek su boobaa ñoom ñoo ko nar a seq kon mbokk internet yi fii la ñuy yem tey ñu topp leen rek ba xam fu wànneen 5 TV te bu leen fàttee bës suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt allah